am na ay ndongo yoo xam ne génn nañu di manifester euh, jot a am sax loo xamante ne yàq nañu ñu ko ça veut dire que anticipation bi euh, am na fu muy tane bu ñu gisee ne présentement euh, ñu ngi ci euh, situation bu tendue aujourd'hui ñu ngi jëm ci daanaka semaine boo xam ne très incertaine ci li nga xamante ne kon moom la ñu jëm li ko waral mooy ce procès pour diffamation entre Mame Mbaye Niang ak kii di Ousmane Sonko beneen bi élèves yi li ko jiitu gis nañu ñuy génnee seeni ay moroomu ndongo parce que certains professeurs dañu leen teg loxo ci loo xamante ne man dama ko wax fii keroog ce de mauvais aloi tey li nga xamante ne moom moo mën a euh, jëmale njàng mi kanam. Mm-hmm. c'est pas parce que dans le lu jëm ci wàllu euh, ministère ko képp koo xam ne da ngay liggéey justice wala kenn koo xam ne da ngay liggéey ci li nga xamante ne moom mooy njàng mi wala nga nekk kër docteur wala nga nekk feneen ak feneen te yow li nga xamante ne moom lañ la tegee loxo bokkul ak si nga xamante ne mooy sa bërëbu liggéeyu liggéeyukaay. Mm-hmm. Euh, jegewul institution scolaire bi kooku boo fa banqué sa loxo wala nga génnee élève def nga loo xam ne waruloo ko def mm-hmm. et malheureusement aujourd'hui Sénégal loolu la ñuy gis de plus en ñuy dem ñuy gis ñi nga xamante ne dañuy fare ci secteur secteur boo laal borom yëngu manifester xupp euh, pour que ñu ñu dellu ginnaaw maintenant nag euh, li ñuy xaar ci justice. Mhm. mooy justice bu tëddee njaaxaanaay je pense que foofu également joyante dafay am bu joyante amee justice bi tëddee njaaxaanaay secteur bu ci nekk def li nga war a def. nit du profito ci secteur am euh, parce que dañuy grève wala parce que teg nañu kenn loxo ñu banque seen loxo ba génnee élève ba aujourd'hui mhm. pour craindre yi ne crainte yi nga xam ne am nañu ko ci manifestation yi tax ñu anticiper li nga xam ne mooy grève Tamba lu may loolu itam ki nga xam ne moo jiite association parents d'élèves ak étudiants yi mi ngi sàkku te énième appel la ci booy xool euh, ci nag jàngalekat yi ñu bañ a euh, politiquer lu jëm ci lekkool bi ndax loolee lañu tàmbalee gis. Euh, moom il a bien raison parce que pourquoi y a rien de plus exécrable y rien de plus ignoble que de prendre des enfants nga leen di def des canons à chair ñu wàcc ci mbedd bi parce que xale àndul ak xelam dañ koy dañ koy xelal. ñu mag ñi nga xam ne ñoo nekk di jàngale xale yi dañ leen war a di xelal mais pas di leen ubbiloo buntu école yi naan leen wàcc leen dem leen ci mbedd mi parce que ay doomu jàmbur ngeen di jël di leen jiital ba pare jël seeni doom ngeen ngeen ngeen làq leen hmm. loolu yaa quelque loolu amul lu ko gën a ñaaw ci àddina donc su dee ñoom pour toog rek ci si su nga xam ne présidentielle bi jaral na leen ñu jël xale yi yóbbu leen def leen ay chair à canon nga xam ne ñu ci bëri dañ cee bàyyi seen i bakkan loolu y a rien de plus grave que ça hmm. donc il est grand temps moom il a bien raison que de le dire il faut que ces enfants ñu leen di protéger il faut que ces enfants état di leen protéger parce que tamit ñoom ñu ak seen i sago donc ñoom ñooñu nga xam ne ne ñu ngi wàcceeloo xale yi mais ana seen doom hmm. na ñu jël seen doom jiital leen après doog a jël doomu jàmbur yi hmm. waaye may yi nga jël say doom nga làq ko ba pare jël doomu jàmbur ba pare di leen jiital ku ci gaañu ci xale yooyu est-ce que gis nga sax ay enseignants yu fay dem naan dañuy dem masawu ak yooyu da ngay gis ñu dem nëbbu parce que xam nañu ne ñoom ñooy instrumentaliser les enfants. du enseignants yi rek mais y en a d'autres xam ne d'autres corpus yoo xam ne tamit ci loolu la ñuy exercer donc ça veut dire ne que on a atteint le summum de l'ignominie. mi ngook Léopold Tamba leneen lu soxal xibaar yi itam te mënees na ci wax mooy union nationale des travailleurs yu ëmb kon euh, liggéeykatu wàllu yoon justice daal dinañuy décréter ñetti fan yu ñuy toog ne ak euh, ne duñ ci faste xànc ak morom ma ak salang loolu lañ ci wootee gréew mouvement bi nga xam ne boo demee ca pale tey dina firndeel ne euh, topp nañu ko bu baax a baax ndax euh, ut fa lu jëm ci wàllu wàllug casier judiciaire wala beneen document soxal wàllug yoon luy jafe la ba tax ne union des travailleurs de la justice lu ñuy sàkku ngir teg gréew bi ci suuf du lenn lu dul ay indemnité de logement Tidiane Diallo moo fa xëy dem union nationale des travailleurs de la justice indi na jeexital fale ca tribunal bu ndakaaxu gis nañu tey audience yu bari dañ ko suspendre boo duggee ci biir bureau yu bëri dañ ko tëj doo fa gis sax ay greffier à part quelques travailleurs ngay gis ñuy évacuer affaire courante yi ñii ñëwoon ngir régler ay papier ca tribunal ñu bari ci ñoom dañoo mujj a dellu si ci seen kër waa union nationale des travailleurs de la justice seen revendication yi leen rek la ñu bëgg ñu généraliser indemnité logement yi ñu fexe tamit seen kuréel bi bokk ci comité de gestion des fonds communs de CREF ñii ñëwoon tribunal ngir régler seen affaire ñoom nag lenn rek la ñu bëgg nguur gi fexe daal satisfaire revendication liggéeykat yi ndax ñoom ci sonn nañu lool ci jaabante bi mi ngook mu nekk ay mbébét yu ñu yàgg laaj Fatou Abdou muy liggéeykatu justice bi ay indemnité de logement tax nañu lompoñal lu jëm ci wàllu secteur bi ci tribunal mëne soo mëne soo am casier judiciaire wala document jëm ci wàllu yoon kaw mooy bi fi Malick Sall nekkee ñoom ñuy grève dañu jàppoon ne le problème c'est Malick Sall mm-hmm. aujourd'hui gis nga nañ ne Ismaïla Madior Fall moo nekk ministère de la justice terewul ba tey ñu ngi ci seen ay jàmbat yoo xam ne amul solution souvent on signe des accords qui ne sont pas réalisables malheureusement ñun fii loolu la ñu am aujourd'hui les travers de la justice gis nañu ne daaw dañu grève grève grève banque seen loxo lu ci bari taggatéemee pour nga ko sànq casier mm-hmm. bu ci bari ñoom ñoo ko mooy euh, ci tribunaux yi donc jafe-jafe boo xam ne dañu koy jànkonteel l' au logement mooy li gën a war a mën a ndaw ci ab liggéeykat moo réewu Sénégal yi ngay liggéey vingt ans mm. nekk fenn te yow waxuma la xuloog maçon waaye amaana terrain sax doo ko am indemnité de logement yoo xam ne ñoom ñoo ko moom dañu ko signé xaatim ko mbokk seen ay protocole d' accord mmh. entre autres revendications parce que du loolu kese am na ci yeneen yoo xamante ne également ay primes yoo xam ne dañu koy war a jot duñu leen ko teel a jox yeneen i jafe-jafe yoo xam ne dañu koy jànkonteel ñu ngi koy jàmbat dañu koy xaatim bind ko ba pare ranger ko ci tiroir yi léegi faw ñoom ñu yëngu-yëngal dañu tàmmal les syndicats maanaam banque loxo ak grève ak xupp parce que foofu ngay amee solution. après ñu woote médiation waxtaan am pour solution am nañuy fexe li ñuy xaati mu doon loo xam ne ñu ko mën a jëfee. Mhm. Euh, te ñu bañ di handicapé les secteurs yi nga xamante ne nit ñi dañu leen di soxla comme la justice. secteur clé wax na ko léegi Léopold Tamba bu mel ni secteur bu justice am fa ay hauts fonctionnaires est-ce que waroon na nañu traîner ba mbir mi yegg si fii booba léegi ñuy laajte indemnité logement ba tax na muy ñuy mu yóbbu leen ci euh, ak grève. warut a yegg si fii parce que la plupart du temps soo xoolee nit ki. ngeen toog ngeen penco ngeen waxtaan ngeen joxe seeni kaddu. mais nag fii au Sénégal dans notre administration liñ ci gën a am comme problème mooy euh, maanaam la sacralité de la parole je l'ai dit. Mhm. et je vais faire en sorte que lépp lu mu leen lu mu leen dig dinaa ko def ba mu mat sëkk. Mhm. mais léegi gis nañ ne que travailleurs yi seen jëmi bopp dañoo toog xaar ñu xaddi di laaj léegi li nga xam ne ne dañ leen ko ameel ay indemnité loolu yëpp dañ koo war a mun a toogee waxtaanaat encore parce que su ñuy bëgg di waxtaan di waxtaante encore jëf day day day day toxu rek day mel ni dañ leen di infantiliser. ay magum jëmm lañu ñu am seeni droit ñu war koo mën a revendiquer et de bon droit que également que état bi war a góorgóorlu. fexe ba nga xam ne ne lu mu dégloo ak ñi nga xam ne ne ñoo di liggéeykat yi ñu jox leen li nga xam moom lañ leen ameel waaye ngay jël chaque fois ngay jox ay parole mais la parole donnée boo ko joxee ba pare sa jëmm yëpp la ñuy xool ndax kii dëggantaan li muy wax nii ndax loolu dëgg la am mais gis nañ ne que tey jii au Sénégal la plupart du temps secteur boo laal parce que tout simplement dafa am ay digge yi fa nekkoon yoo xam ne matali ñu ko hmm. kon dañoo des a matadi ci lépp loo xam ne ne dafay bàyyeekoo ci digge te digge ci karal ci parole la la parole est Dieu la parole est équilibre mi ngook Léopold Tamba fa ñuy jaar sax wax ci leneen soxol la xibaar yi mu jëm ci wàllu révision list électorale yi collectif des organisations de la société civile pour les élections euh, di COS mi ngi sakku euh, ci euh, état bu Sénégal ñu daal di yokk lu jëm ci wàllu délai révision liste électorale yi ndax délai bi nu ko jox dafa gàtt lool noonu lañ ko gisee Alassane Seck daan na ci pëtoxlu moom mi porte parole ba di dikkaat itam ci contexte politique bi nga xam ne dafa jéggi dayoo jamono ji collectif bi sax ëmb des civils euh, ñu ngi euh, ñaawlu itam ci geneen wet gi euh, violence wala appel violence yu ñu nemmeeku ci kujje gi ak ci ku mu mënti doon ñu teewlu ci Younousa Baldé wanu fa teewlaan ci lu soxol révision exceptionnelle ñeel liste électorale yi collectif gu ëmb organisation yu nekk ci société civile bi di sàkku ci kilifa yu gën a kawe yi ñu yokk délai bu ñu jégleel révision boobule ñu jàpp nii rek dafa gàtt lool. délai bi ko jox dafa gàtt ci weer la ñu may ñit ñi ñu dem inscrire ci liste électorale yi jàpp nañ ne lu gàtt la lu ñu mën a corriger la ndax présidentielle bi passé muy bu 2019 Euh, ñi doon dem di inscrire amoon nañ au moins ñaari at ñaari weer. ci lu aajo xiiro ak ŋaayo bu ñu nemmeeku ci langum politique bi kos di ñaawlu bu baax a baax woote violence yi ñu nemmeeku fu mu munta jógee. ba am ay nit yu ci loru ñi ci génn àdduna ak ñoo xamante ne am nañu ci seen i euh, liggéeyukaay yu yàqu waaye ñu ngi ñaawlu tamit ni ñu ñuy traité ki nga xamante ne mooy euh, Ousmane Sonko. ba muy laal intégrité physique nekk na loo xamante ne lu ñu ñaawlu la. ñoom ñooñee di xam ne nii rek li leen tax a jóg mooy jàmm am fii ci Sénégal ci noonee ñu fas yéene amal benn rassemblement ci ndakaaru niki suba jagleel ko jàmm fii ci Sénégal. lu des ci ñu tàbbi ci élection présidentielle yi Léopold Tamba euh, jege na lool soreetul ba tax na société civile ci seen rôle mooy ñaan état ci lu jëm ci wàllu délai bi nga xam ne moom la jox révision exceptionnelle liste électorale yi ñu daal di koy pousse nag ndax gis nañu ne délai bi dafa gàtt lool. enfin ñu gis société civile parce que boobu ak léegi xamuñu woon ñoom fu ñu péetee. parce que ñoom dañoo war a nekk ñi nga xam ne ne les hommes du milieu.